Xavier Diatta maa ngi lay nuyu. maa ngi maa ngi lay sant maa ngi lay alors ngay njiitu Casa Industrie SA ñu gis ni annoncé nañ li nga xam te ne euh, mooy reprise euh, liaison maritime Dakar Ziguinchor ngir ñu tàmbaliwaat ko euh, mën nañ wax un ouf de soulagement xel yi dal na wala dafa yéex. man de sama xel dafa tey parce que gëmatuma leen parce que bi ma liiree seen communiqué dama foogoon ne boo amee service public. boo xam ne na ko taxawal léegi am na parce que juróom-ñetti weer booy tàmbale ci njëlbeen ba je crois que da nga war a jël askut nga nga jéggalu d' abord par rapport aux usagers ñoo xamante ne ñi la taxoon ngay jóg ñi la taxoon ngay liggéey au moins nga am benn moo nga leen ah jéggal leen ma lii moo taxoon lii lii moo taxoon ma arrêté béy bi waaye léegi dañuy dañuy fas yéene ah tàmbaliwaat liggéey bi et puis nga joxe calendrier bu clair parce que lu ñu wax noonu. kenn xamul man gëwuma leen pour vous dire vrai le fond de la pensée leen loolu moo tax mënuma ci rafetlu mënuma ci kii mais dama xam ne ñii vraiment euh, li li ma li ma naqari c'est que euh, impression man bi ma am peut que dama juum mais impression man bi ma am c'est que dañu bëgg a téye yi comme ay gone ñoo xamante ne mën nga dem ba ci digg allé bi daal ah décembre bu décembre bu dikkee dinaa la gën a parce que nañu xam ne nañu xam ne mais xam nañu mais xamuñu exactement lu ëmb ligne boobu lu lu ëmb. Hmm. ligne boobu c' est quelque chose de très sensible c' est quelque chose de très sérieux bu ñu la joxee service bu mel noonu il faudrait nga xam noo koy doxale hmm. parce que man gis na ay famille yu tas yoo xamante ne parce que foofu lañ doon suturlu mais depuis bu ñu arrêté ligne bi am na kenn autorité ci ñoom peut être mu déplacé wu mu ñëw gis groupement yi doon liggéey foofu mu neen ah lii moom mu masaw leen dégguñu kenn tous les jours ñoom ñu ngi nii xamuñu exactement ci lañ ñu ne lan lañ jàpp ñu ñooy sénégalais lañu il faut ñu gëstu rek. Hmm. te ñoom bu ñu xamee du bu ñu xamul ne su fekkee ne même embauché wu ñu leen ci Kosama mais ñu xam ne ñooñu foofu la ñuy suturlu dañu am benn égard boo xam ne dañ ko war a am boobu ci ñooñu. Hmm. alors loolu amul. Hmm. ñu toog tey ñu génneel ñu. beneen ñu ne waaw yaakaar nañ ne fii ak un mois dinañ eh, ñoom toog nañu presque huit mois yoo xam ne liggéeyuñu huit mois yooyu est-ce que doyu loon pour ñoom ñu réviser affaire yi boobu ñu leen ne allez ko commencé ngeen commencé loolu moo tax man lu ñu wax daal seen kàddu gi man dama foog ne wax si kaw saret alors lu toll ak juróom-ñetti weer yoo xamante ne taxawaloon nañ ko demul dikkul liaison maritime boobule nga xamante ne mooy dem diggante Dakar ak Ziguinchor yan impact la am ci activité wu usager yi. impact yi man ñi nga xam ne jiite la ne dama koy xayma damay wax lu ma parce que impact yi bëri na lool am nañu impact yoo xamante ne dafa laal sax. ci doxalinu famille ci seen famille ñoo xamante ni foofu la ñuy doon dañ doon suturlu comme ni ma ko waxee sànq ah. ñooñu nga jékki-jékki benn bés ñu ne la de amatoo fooy liggéey donc doo mun a sa sa doo mun a faj sa sa sa njaboot doo doo mun a dund sa njaboot loolu du crime loolu crime la mm-hmm. donc impact yi dafay rëy rëy rëy koo xam ne bon peut-être maintenant impact économique itam buñ ko bëggee xayma ci xaalis je crois que am na ay si ay ay institutions yoo xamante ne état moo moo leen teg fii comme euh, chambre de commerce comme euh, DRDR comme yooyu ñoo mun a ñoo mun a xayma ñu ne la ah impact bi ñu la toll mais man mii pour ma la nee impact bi dafa toll ci euh, sangam. damay wax lu man lu ma neex. alors opérateur maritime bi euh, lu ci mënti doon ci Aline euh, Sitoé Diatta ak Guène waaye tamit jàmboñ euh, fi mu toll nii port autonome de Dakar daal taxaw na ngir indi wala sax fësale expert équipe bu expert goo xamante ne dinañ mën a def liggéey bi war ci wàllu boobu. xam nga ñaari société moo moom mooy consortium bi moom moo moom yi. port autonome moom mooy responsable yoon yi. te xam nga fleuve Casamance du n'importe quel moment ngay mun a naviguer ci fleuve bi dafa am ay bancs de sable ay suuf yoo xamante ne da da day taxaw ci benn place boo xam ne ba doy bu bu bu fa duggee day day day donc euh, ce qui fait que ñoom balaa Kosama balaa Kosama di commencer liggéey bala mu tàmbali liggéey ñoom il faut ñu saytu loolu ñu xam est-ce que am na sécurité est-ce que bateau yi mën nañu dem je crois que port autonome loolu la loolu moo tax ma la communiquer ko sama man gëwuma ko parce que bu bu nekkoon sax communiqué boo xamante ne si nañ signé nañ ko ak waa port ma xam ne lii peut-être lu sérieux la parce que ñoom maîtriser wuñu calendrier port mën nañ signé ay convention ba nañ ci port ne leen man dinaa def liggéey bi ci diir sangam euh, bu ñu booba pare wu ñu lu ñuy def parce que buee yëpp buee yëpp yooyu de buee de signalisation la yooyu yëpp a tegeeku bu pare saturé donc loolu moo tax bu ñu mënee d'ici un mois ñoom dañ tàmbali liggéey bi ah buñ ko mun munee xayrun waaye man duumu leen. très bien pour yow lan moo indi euh, problème bi yëpp. problème bi man man ci li ma foog dama foog ne peut-être sama Kosama dañuy dem ba moo ñoo ñu gis ne mënatul mënatul loolu moo tax ñuy laxat parce que bu ñu mënoon ñu am ay bateau yoo xam ne day dox amul benn problème ministre wala président wala kii wala ne la ah man de tey gëwuma gëwuma ne président wala ministre moo bëri loolu dañuy wax mais man gëwuma ko parce que ñoo ñu xam nañ ne ñu ngi dépensé xaalis yi ñu ngi naan marketing territorial kon suqali koom-koom mënoo jël xaalis nga dugal ko ci suqali koom ba pare nga arrêté loo xamante luy suqali koom-koom loolu moo tax gëwuma ko donc aujourd'hui man man man ma gis mooy d'abord Kosamaan ñu jëlee leen ñu ñu ñu ñu ñu nangu ñu nangu. Euh, exclusivité bu ñu leen jox parce que ñun Sénégalais yi xamul Kosama rek moo am sañ-sañ moo am droit jël bateau jële ko Dakar indi ko Ziguinchor benn opérateur amul droit boobu même boo amoon tey xaalis wala nga am sax marchandise bi Casamance nga bëgg ñëw jël si mais munoo ko def parce que Kosama du la jox autorisation parce que Kosama ne la ma amoo autorisation donc yow mënoo def hmm. donc man de bi ma gis waa Kosama ñoo mënul. donc aujourd'hui pour ñu régler problème boobu définitivement il faut ñu libéraliser ligne boobu koo xamante ne am nga jitukaay am na am am nga moyen nga dugg foofu nga nga comme ça transport bi dem comme ni ñu ko defee ci yeneen ci euh, par bateau par la route par avion euh, nga kii ko mais mënuñu ko bàyyi ci loxo ko sama et chaque fois et puis c'est pas la même la première chose c'est pas la première fois amoon nañ fi ay at yoo xam ne toog nañ fi ay ñaari at wala ñu toog fi benn loo xamante wala ay ay ay parce que COSAFA dafa am ñu ne la ba lay dem carénage ba lay kii ba tey bu demee carénage ba beneen bato bu ñëw je crois que problème bi foofu la nekk. yi tamit na la ñuy dundee euh, situation euh, bile rawatina ñi nga xamante ne dañoo nekk ci activité commerce bi. mooy ñuy dund ci activité commerce bi ñu mais day dematuñu ñoom dañu dañu dañu mujjee dugal seen bagage yi ci ci ci soit ci horaire yi wala ci camion yi te loolu dafa seet et puis loolu encore. mais loolu moo tax man loolu laa mënul comprendre parce que gis nga tabax nañu ay yoon yu bees te yoon yi lu ko gars yi yàq mooy camion yi yoon boo ko sollicité trop da nga koy yàq aloo que ay yoon yoo xam ne ay yoon yu bees mais camion yëpp foofu lay jaar loolu moo tax prix bi parce que c'est normal yow ñoo ñoo indi seen camion camion dafa am lu koy déplacé camion du du du du du caaxaan donc prix yooyu il faut que ñu répercuter ko loolu moo tax boo ñëwee. Euh, du du luy jaar cent franc ñu ne la lay jaar luy jaar deux cent ñu ne la juróom fukk lay jaar donc nga xam ne bon waa ci ñu ngi muñ ak dignité dégg déggoo ci kenn ñu ñu ñu ngi muñ waaye il faudrait que waa Casamance su fekkee dañu bëgg a respecter seen usager nañuy bàyyi wax mel loolu. Mhm. jamono ji nag lan mooy seen euh, moyen de transport. mais mooy oto yi comme ni ma ay car ay horaire. car ay ay ay bus loolu rek la loolu rek la ñu am comme jumtukaay yi nag ñoom lan mooy seen activité gi ñuy faral di def euh, jamono ji. ñoo xamante ne dañ doon liggéey foofu finalement ku nekk da sa bopp yoo xam ne yow xam nga ne ah, amatul mais yaa ngi yaa ngi góorgóorlu parce que ñooñu sax néew di bi ñu ngi survivre ah dañuy góorgóorlu nii ah boo boo boo añee ah, nga nga nga dem tëddee suba boo foree dara nga nga ñëw kii ko loolu loolu du pour ay ndaw ñu loolu moo tax jàppalu ko ñu bëri jël nañu gaal yi mhm. après tous les jours ñu ngi dugal xaalis pour lutter contre ce phénomène là loolu moo tax ren ko man de vraiment finalement ma mënatuma comprendre dara ci ji nag yan pexe la ñu mën a lal rek ngir mën a éviter li nga xam te ne mooy arrêt yooyu la. ma ne la euh, tas ko ñu bàyyi ku am doole nga nga nga teg sa a Xavier Diatta jërëjëf may fàttali rek ne yow yaay njiitu euh, Casa Industrie SA ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.